أقبل ذا الجدار فذا الجدار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب ما سكن بها الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتدا بلوغ كمالي فالغير دون الله إن حققته عدم على التصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محواه وفي محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عن المحال فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماضي والاستقبال الله لا إله إلا الله الله الحمد لله wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sayidina mawlana muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima taslima ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di nuyu suñu xalif fii si Dakar Cheikh Mouhamadou Amine Ibrahima Niass di teg suñu nuyoo suñu ziara ci suñu xalif Pape Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di ko jox suñu nuyoo ak suñu siyaara mu teg ko ci loxol xalifa bi ginnaaw loolu nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni ñu ko baaxoo defee euh, ak mu jot dina ñu baaxoo def lu mel nii ngir waajal li nga xam ne mooy siyaara suñu sëriñ Cheikh Mouhamed Amine Ibrahim Niass ñu gën ko xam ci Baba Lamine ci fii nga xam ne mooy liberté si ci terrain gaar gi ñu ngi koy defee fii ci terrain gaar gi le dimanche 14 juillet ci at mi ñu nekk naam euh, programme boobu nag mi ngi tàmbali euh, su 16 heures jotee incha allah muy 4 heures ci la programme bi tàmbali sikarkat yi ñëw sikar suñu demee ba waxtu wasifa muy 6 heures ñu tàmbali wasifa jëm timis suñu paree sëriñ bi ñëw jiite ñu ñu daal di tàmbali programme bi ak ay conférencier euh, ci loolu nag ñu dalal fii suñuy kilifa suñu muxaddam kenn ci ñoom ñu koy wax al oustaz euh, Cheikh Momar Dimlo kon moom la ñuy jox kàddu bi mu tijji ko comme ni ñu ko defee at mu jot alhamdulillah على جميع الورى فالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ñu ngi santaat yàlla moom rek mooy yooyu sant di julli yonentam teel bi sallallahu alayhi wa sallam di ko nuyu di ñaan yàlla mu jot li ñu suñ nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu del siaar ci li nga xam ne xewal la ci biir xewal ci biti ci zahir ak ci baatin di siyaaree Mouhamadul Amin Ibrahim nga xam ne boo ko siyaaree siyaare nga cheikhul islam alhaji Ibrahima Niass siyaare nga xalifa Mawlana cheikhul islam alhaji Ibrahima Niass siyaare nga cheikhna Ahmad bun Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu siyaare nga yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam وكافة أصفياء الله وأوليائه وكنوسه في الأرض ci loolu nag ci lañ danaa wax ne ki ñuy seeyal tey kenn du leen ko jàngal mooy kan moom la bàyyi noonu yow laay jox lenge yi bu ma fi bayee ko li may defal yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam te woy wa ñépp ba baaba ñëwee tontu ko ne ko wa inni وكيل الحب أسقيت كأسه وإني به كالورق دهرا أقرده loolu la tontu li ma bàyyi dénk istaawaat naa ko dama koy def sax ba mel ni eh, piccam jàmm moomu xamaamu salaam moom nga xam ne picc mu ne ba eh, banqaas bu ne dana fa taxaw woy sama woy nag mooy tagg yoon bi sallallahu muhammadan hayoo nabiya muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nay yo nay yónnanti bi ci jëmmi baaba baaba nag mooy ki nga xam ne danaa ci junj benn wax boo xam ne moo ko waxoon daf na yónnanti bi la doon wax ne ko lam nalqa baaban xayra baabika yurtaja is hammana albasuau wa darau lam nalqa baaba xayra baabika ma ne ko lam nalqa baaba xayra baaba baaban yurtaja is hammana albasuau wa darau kenn ku nekk ñun ñaar yi bu la ci dara ñëwal ci seer yal na bu kenn dajeeg baasa waaye ku dajeeg moom ñool ci siyaar bi day wér ak lu mu a doon muy ñàkk ba ca gën a bon nag mooy ñàkk yonent bi dafa waxoon ne laa wala quwwata illa billah dana saafara juróom-ñaar fukki jàngoro mu ne ba ca gën a néew nag mooy ñàkk siyaare baaba ma ne lamu lay defal ba ca gën a néew jàngoro jam lay njëkk fajal ba ca gën a néew mooy dàqal la ñàkk ba foofu lam nalqa baaban xayra baabika yurtajaa isamana baasaau wa darraau ma ne teel nag si àll bi teel yëpp xam solo waaye xam nga bu ren bi mooy lan dama doon jàng allahu alladi xalaqa samawati wal ard ba ca jeexlu ko mu ne wa aataakum min kulli ma saaltumoohu ma ne ko biha wa aataakum min kulli ma saaltumoohu biha li tax ma ne biha niamatallahi nga jëkk kanam niamatallahi juróom-ñetti xarab la boo ko yokkee ci wa aataakum min kulli ma saaltumoohu mooy mille quatre cent quarante suñu siyaara ren bii incha ñu ngi ñaan baaba ci ndugg soosu mu defal ñu ci dog boo xam ne ku ko ku ko xool sax sawaajo foj waxuma la ngay koy jàng dama ne wa aataakum min kulli ma saaltumuhu biha ay bi niamatillah maa ngi siyaare yëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu xalifa sénégal yi ci sénégal yëpp maa ngi nuyu xamal ne kër gii muy kër baay moom kër pour ñëpp la ku ñu asal wallaay xaajalewuñ góor xaajalewuñ jigéen xaajalewuñ politicien ñu ngi xorom ñëpp ñu ngi siyaare ñëpp en tout cas ku bëgg sa aajo faju ren ak daaw ak daaw jéeg ak li ñëwagul la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi xam nga ñaan bu fekkee ne ki koy def ku yàlla gërëm la maa taqaddama minha wa maa taaxara loolu mooy nekk di jëmm ji ñuy baaba yàlla may nañu koo xam ne incha allah yan buñ ko xam xaat ndax lu ma mënul nekk waaye yan nañ ko xam ci suñuy poche yan nañ ko xam ci suñuy xam-xam yan nañ ko xam ci suñuy leer yan nañ ko xam ci suñuy diine yan nañ ko xam ci suñuy yaru yaru doom ñu ngi woo ñëpp ko bugg am doom yoo xam ne day tëdd alxuraan ku bugg am doom ñoo xam ne day am xaalis ku bugg a am doom yoo xam ne lu bugg am ko ñu ngi lay xooral ci siyaar bu góor a jigéen ndaw bàyyiwuñu kenn فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم gannaaw buñ sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo wax ci alquran ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñi ne buñ buñ tooñee seen bopp buñ la dikkaloon yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga jéggalul leen yàlla yàlla dana leen jéggal kon jataay bi liy mbóotam muy ziyaara bi mooy ay jël yu dellusiwaat ci seen buntu sëriñ jël seeni bàkkaar ak seeni xaajo lépp jëbbal waaye danay wax nag taalibe buy ñëw ci kanam sëriñam du ñëwee benn rëy ndax mooy ki tooñ boppam ca yaakaar njéggal ci yàlla ca kiñ yaakaar njéggal ci yàlla mooy aminul wahyi bàyyi moo ko tuddee woon aminul wahyi gannaaw bu mu leen waxee ne waqad daawtukum bil ghaybi wa antum awliya allah bi mujarradi ma samaytukum habibi wa qurrata ayni teg nazirul ummati aminul wahyi aaqibu rusul maahil kufri wa dalal mahmuun makki hasan kii bunt la ci bunt yàlla yi lu tax bunt la ci bunt yàlla yi ndax dundam lépp jox na ko yàlla ba mu jeex bu fekkoon ne du Mawlana Cheikh al islaam bi nga xam ne mooy woy juróom sax dundam lépp jox na ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak jaam yàlla yi ba nga xam ne desewul dara toog di wax ci moom yaakaar naa ne loolu guddal la Baaba suuf si xam na ko asamaan si xam na ko guddi yi xam na ko bëccëg yi xam na ko dégg naa muy wax ba mu yàgg mu ne wa kama ta'awwadtu an uhyiyal layali li ma fonkee tàmm ko di dundal guddi di dundal guddi yi ci sikar di dundal guddi yi di jël jaami yàlla di leen yóbbu ci seen xadra borom dëgg dëgg ko bu fekkee ne moom lañuy ñuy ooteel tey yaakaar naa àddina bi yëpp ñoo war a ñëw ndax ku yàlla bind rek jëriñ na ci moom muy jullit muy murit muy xaadir muy leneen boo xoolee li nga xam ne liggéeyal na ko réewam ci diplomatie ku fa dem rek jëriñu nga ci moom ñoo xam ne xamuñu ko dégguñu ko egg mu jëflanteeg ñoom ci mbaax kon mbaax googu nag mu jëflanteeg jaam yàlla ci biti ba àddina yëpp xam ko te Sénégal ñoo ko mujj a xam kon jot na loolu la ñëw tasaare ko ndakaaru bi mu ñëwee Dakar gis nga géew yi gën na yaatu xadara bi gën na yaatu kon la 14 juillet kenn ngànt mayu kenn ngànt ndax la 14 juillet ku fa teew incha allah ni ko Cheikh Mouhamad Jumlo waxee nga xam ne waxam rek doy na képp ku fa teew te yàgg fa teew da gis soppeeku ci say mbir ci àdduna ak ci àllaaxira loolu moo tax ñu toog fii pour biir àddina ñun lépp lu ñuy wax gis nañ ko xam nañ ko waaye nag ñu mosut ñoom mos parce que masima ak danga mhm. dégg bokkut ak gis na ko wax yëpp nal kiraami allah taddunu ko tub sur maa xat adda suuta famara man samia wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi nuyu ñëpp di wax ne ñu ngi wooteel siyaar koo xam ne ñeme nañoo wax li aaya bi wa inna arsalnaaka saahidan wa mubassiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi isnihi mooy borom ndigal jëlee ko nag si borom ndigal bi nga xam ne moo wax ne wala abdu qad laqiya ayna al ilmi wa jaahu al idn biduni wahmin jaam bi muy Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mu ne dox na ba daje jëmmi xam-xam ja ndigal dikkal na ko si lu def def le kooku nag moo jox ndigal ki nga xam ne doomam la di léppam di wakiilu daadin nga xamante ni wax na ko si wax boo xam ne ñun ñëpp dégg nañ ko wax na ko ne ëllëg maa ngi lay jox rendez-vous sa kanam yonent bi kanam Cheikh Tidiane yi radiallahu anhu nga xam ne soxla bii mooy jum bi yow yaa koy yore sama gannaaw pour lan liggéeyal diine ji liggéeyal tariqa bi liggéeyal fayda bi kooku mooy saydi wa mawlaaya wakiilu daadin di saydi Mouhamadul Amin ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu kooku nag suñ ko waxee rek yaakaar naa ñëpp xam nañ dégg ngeen lépp lu mu wax rek yàlla day jubóog moom si wax ba bu yàggul rek dégg ngeen li mu waxoon waaye yàlla dafa déggoog moom kon nag képp koo xamante ni bëgg nga mu wax dara fekk yaa nga fa nga nekk si xolu wàllu yàlla ñu ngi lay invité siyaar boobu la 14 di invité Sénégalais yi di invité àdduna yëpp di invité nit ak kudul nit sax ñu ngi lay invité si bés boobu ndax yonent bi sallallahu alayhi bëggal nañ si njëriñ képp kuy nit rawatina kuy jullit rawatina kuy taalibe Seydi Ahmed Tidiane rawatina kuy taalibe Baye na ñëpp dajee si Sénégal gi xool ko mu nampal ñu comme ni bonaat di nampale doomam te yàgg na ko wax kon ñu ngi leen di jox rendez-vous boobu asalaamaaleykum wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wassalaam ala sayyidi al arab wal ajam alfatihi lima ughliqa alqaidi alqurri almuajjalin sayidina muhammad wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaari alazim wa baad ikhwatu aliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rab يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may mbaax gii nga xam ne fekkee nañ ko ñu koy sant di yaakaar ndollam te am na ndollan ñu ngi ñaan yal nañ fekkee xaat ndax ndollan gii ñu am ren ji yal nañ fekkee xaat bu déwén di ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñi ay jullit lañ waaye ci nuyoo googu ñu ngi ciy nuyu ñi nga xam ne ñi ñooy suñuy kilifa di ci jiital alxalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim ci ndigalam mi nga xam ne moom la rakkam bi nga xam ne gi moo ko fi toogal di xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim muy baaba nga xam ne ndigal googu mu ngi bàyyee ko woon ci rakkam muy maanaam magam muy Amadou keroog ba nga xamee ne gi magam nelaw na ne jox naa ñëpp ndigal mboolem taalibe yi nekk Dakar ku bëggati ñëw kaw Kaolack yemal ci baaba ndax moo fa toogal xalifa mu ngi leen di nuyu di ñaan borom bi tabaaraka wa mboolem jullit ñi nga xam ne ñu nekk ci àddina bi yépp nuyoo boobu yal na leen jot liñ jublu ci nuyoo bi mooy ñu ngi oote oote boo xam ne gi yàllaa ko woote ñu ngi oote oote boo xam ne gi yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko woote oote yàlla gi mooy lan mooy jaami yàlla yi nañuy daje ndax ñu mën a jëriñante daje bi nag li ko sabab mooy ñëw siyaare si ñun ay taalibe tiijaan dafa bokk ci li nga xam ne lii mooy suñu ponk tariqa mooy di ziyaare ji ziyaare ko nag ñëpp wax nañ ko mooy ziyaara baay ziyaara baay mi nga xam ne moo waxoon ne moo waxoon ci xaqam ne rabbal amini aati bil amin kullal mataalibi aha kañ looloo am moom mbooleem ku ko ziyaar rek da nga jëriñu euh, wax nañ ne ku bañ ñàkk ziyaare ko waaye ku bañ réer ziyaare ko waaye ku bañ maanaa yàlla sax ziyaare ko ndax nga bëgg yàlla baaba ku jàkkaarloog moom rek bëgg yàlla ndax moom jëmm la boo xam ne gii dafa jeex takk ci yàlla kon nag ñoo ngi ciy woo addina bi ñoo ngi ciy woo julit ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñii ñooy taalibey baay yi ñoo ngi wax ne baaba na mboolem koo xam ne kii jullit wëllëre la waaye nag xeyal na mboolem koo xam ne taalibe baay maanaam xëy goo xam ne gii kenn réeree hut ko ci liggéeyal la loo xam ne lii yow xam nga ne la nga am gannaaw yàlla yàlla nga ko jaarale ci baaba loolu nag kon pour ñu delloo njukkal ñun ñëpp rawatina ñun taalibe bàyyi nañ ñëw uysi ko te uysi ko mooy jëriñu jëriñ googu nag suñ ko ootee mooy que ne ñëpp nañ def sam an yal na yàlla may ñu fekkee ko ci tal bes bi mooy fukki fan ak ñeneent comme ni ko ñëpp waxee nañ ñëw aussi yal na yàlla def ci ñun dëgg ak topp ñu ngi gërëm ñu ngi sant yàlla tey ñaanal suñu xalifa moo naa si Ahmada Tidiane ak moom mi nga xam ne moom la ñuy ziara yal na fi yàgg ñun tamit ñu ñëw di koy ziara di ko fii fekk yàlla mën na loolu yal na ko yàlla def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi la si jaala mutabaata awliyaa'i falaahan wa salaahan wa mahabatan wa tahsiman wa imtisal awamiri rabban wa najaan wasalaatu wasalaam ala abdalil mursali sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di ñëwaat beneen yoon ci siyaara bii nga xam ne ñu ngi koy defal Mahamadul Amin baaba mi nga xam ne mooy représentant xalifa bi fii ci Dakar nga xam ne damay wax ne bi mu duggee Dakar ba léegi jig na waa Dakar ndax kenn ku nekk gis na ni tariixa bi di yokkoo fii ak ni dina ji yokkoo fii ak ni fayda bi di yokkoo fii suñ ko nuyu ñi ngi nuyu xalifa bi di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te yàggal ko ci suñ kanam waaye ñi ngi nuyu it imaamul akbar imam Cheikh Tidiane Ali Cissé moom it ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te guddal fanam gannaaw loolu bokki taalib yi ñi ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne bis gën koo rëy ndax bis bi ren dañuy wax ne mu ngi tollook fukki fan ak ñeent fukki fan ak ñeent mooy wahaabu wahaabu nag yaakaar naa ne kuy xut dara nga ku la jox te képp koo xam ne yàlla dimbale na la ba defal la tawfiq nga mën a ñëw fii ci Sénégal gi jàkkaarloog Mouhamadul Amin Sadio dana fayu li tax loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala suhada walakinnahum yaxbitu anbiya wa soda li makkanati min allah xasa wa jalla li shiddati alqurbi fa sala sailun ya rasulullah man hum mu ne hum qawmun satta yajtamiuna li sikrillah wa yatahababuna wa yatasaawaruna wa yatabasaluna fillah mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne am na si ñoo xam ne maanaam duñu ay yonent te bokkuñoon ci ñi sayit te bu ëllëgee yonent yi danañ leen ñee ñi sëyitoon danañ leen ñee ñu ne ko yaa rasulallah ñoo ñan la mooy ay nit la yoo xam ne ñi dañ ay nit la yu fasantikoo yoo xam ne dañuy dajee ngir bëggante di dajee ngir tudd yàlla dajee ngir siyaare ante ngir jëm yàlla ji bu ëllëgee ñooñu yonent yi danañ leen ñee ñi sëyitoon danañ leen ñee képp koo xam ne nag bëgg nga sa aajo faju na nga lu nga ñëw bëgg nga sa jàngoro faju yit bëgg nanga góor góor lu nga ñëw ndax lan siyaaratul arbaabi tuqaa murhamoon yëpp rii wa miftaa wa miftaaw abwaabul hidayati wal xayri bu ci siyaara wul yàlla maanaam booy ñëw jàngoro bu mu fekk ci yow rek boo ñëwee siyaara ko jàmm mooy pomaat bi nga xam ne moo ko riiboo dal di kon ñu ngi woo ñëpp wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di nuyu al imaamul akbar Cheikh Tidiane Alioune Cissé di teeg suñu sëriñ Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñu waral bés bi di yëgal taalibe yépp ñu ngi fas yéene ziyaara suñu sëriñ ziyaar boobu nag ñu ngi jàpp le juillet incha allah ci terrain Gaal ñu yëgal mbokku taalibe yeeg mbokku jullit yépp ni leen bésu jaayante teeru na kon nag góor góorlu di soññaat jigéen ñi surtout ci jaayante ñu fuglu bés bi nga xam ne suñu kanam def ci yitte bu kawe macha allah ndax bés boobu rek lañu am jaayante ak suñu sëriñ kon nag yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ba ñuy jaayante ko ci jàmm ak salaam jaayante bu taxaw bu am solo kon euh, ñu ngi ñaan tamit taalibe yi na ci ñëpp def yitte góor góorgóorlu ci bu baax di soññaat jigéen ñi tamit ci dal ak tey ak colko ko gu yiw ñu fas ko yéene indi ci bërëb ba ndax ñu nit ñu mën a tëbb tëbb yu kawe kon loolu la ñuy ñaan di soññaat taalibe yëpp rek fépp fu ñu mën a nekk bés bi lañu mën a am pour delluwaat fuglu bés bi bu kawe ndax ñu mun a tëbb tëbb bu kawe it kon nañ ko def suñu bës yitteel ko macha allah ba ñu am ci lu ñu bëgg gisoon nañu la ñu baaba di woon ca tay ba macha allah kon lu mel noonu la ñuy xaar yal nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam di sant di gërëm wax ci sa kanamu kilifa jafe na waaye ñu ngi jégalu beneen yoon ci kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu kilifa yi teew asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, ci ndigali Mawlana Cheikh Lislaam Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass al Khalifa ci ndigali Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahim ci ndigalu Imaamul Akbar ñu ngi oo mbooleem jullit ci ziyaare bii nga xam ne ziyaare suñu sëriñ la mu nekk Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moom moo représenté xalifa bi fii ci Dakar ziyaare bi nag kañ la. mu ngi nekk dimanche la 14 incha allahu juin fii ci terrain gal 14 juillet fii ci terrain gaal gi incha allah comme niñ ko baaxoo di def ziyaare nag bàyyi wax nañu lan mooy njëriñu ziyaare ziyaare moom mooy ziyaada te ñun ñëpp bëgg nañ dollal te ko boo bëggee dollal da ngay dem ci ko am dollal mu jox la ko kon ñu ngi oo mbooleem jullit ñi ñëw teew ci bés boobu xam ne bésu cheikh ma bésu cheikh Mouhamadul Amin bésu jullit yëpp la te kenn ku nekk ci ñun rek fekk la ne ba fi nga dëkk fekk la ne ci sa jetaay kon dëgg-dëgg bu bu buñ ko sosalee bés moom sosul bés bi ñun ñoo ko sosal kon buñ ko sosalee kenn warta am ngànt ndax amoon na ngànt te ku ci nekk ci ñun rek ñëwal na la ñu ngi ci oo ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi rawatina ndaw ñi ndax ndaw ñi dafa nekk nit ñoo xam ne baaba daf leen a jël dugal seen xol yi bëgg yàlla dugal seen xol yi jub dugal seen xol yi jullite kàddu yu ci des yëpp nag ci bés ba incha allahu dañ ko mot ñu ngi oo ñëpp incha allahu dimanche la 14 juillet fii ci terrain gaal gi wasalaamaaleykum alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki àddina bi fuñ mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di ndokkeel di jiital nag ci siyaara bi ak ndokkeel yi suñu sëriñ cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass radiyallahu anhu jox ko nuyoo boobu ak siyaare boobu mu tegal ñu ko ci kanam suñu sëriñ ñun ñëpp di xalifa Mawlana cheikh Ibrahim radiyallahu anhu cheikh na Ahmad Tijaani yal na yàlla yokk wéram guddal aw xanam mbool ak mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ak mbooleem kàngami pey bi di nuyu suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim fuñ mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar waaye di nuyu al imaam al akbar Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé radiyallahu anhu di ko siyaare di ko ndokkeel ci bés bu màgg bii nga xam ne sos nañu ko at yu yàgg di ko siyaare suñ sëriñ Cheikh Mahamadul Amin yaakaar naa ne booba ñibbiseegul ma nga ca Saudiya tabaarakallahu di liggéeyal réewam ñi ngi siyaare imaam moomu di siyaare mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Alioune Cissé radiyallahu anhu góor ak jigéen mag ak ndaw fuñ mën a nekk waaye di siyaare suñ yaay Fatimatu Sahra yal na yàlla yokku wér yokk ko fan wu gudd gunge njaboot gi gunge mbooleem ñooñ pay bi di siyaare suñu yaay Cheikha Mariam bintu cheikh islam haj ibrahim Niass radiallahu anhu mi nga xam ne tey ku nekk xam na ne xam na kan mooy cheikha mariam ci liggéeyal diina l'islam ku nekk xam na cheikha mariam ci njabootu Mawlana cheikhul islam ku nekk xam na cheikh cheikha mariam ci cheikh mahamadul amin mi nga xam ne moom daf ko tànnal boppam jël cheikha mariam ndayalee ko boppam radiyallahu taala anhu yal na yàlla dëgëral seen taxawaay ñu ngi nuyu ñëpp sang yu tedd yooyu yëpp di leen siyaare ndax tey ñooy mazharu mawlaana cheikhul islam haaji ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi leen di siyaare comme ni ko mbokk yi taalibe yi waxe ci njiital suñu mag suñu kilifa alhaaji jim Mouhamad Lo bi waxee rek doy na waaye ñu ne na bu ci nekk joxe kàddu ndax dëgg-dëgg yàlla làmmiñ wa barke yàlla rek mooy ki nga xam ne moo ko xam kon ñu ngi oo mbooleem taalibe yi fuñ mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp baaluñ kenn mayuñ kenn ngant na ñëpp mobilisé wu ci siyaare bi te xam ne siyaare la boo xam ne mosta ñàkk yaakaar ndax ku xam fa siyaare bi déparé ca Sacré-Cœur kër Cheikh Alhaaji Abdullahi ñuy fekk foofa sëriñ bi bu ñëwee balay delluwaat Saoudia ñu dajee foofu defal ko siyaare bi ca biir saal ba muy màgg yàlla andi ñu fii ci Liberté 6 ci këram ñi di ko defee ci suuf ba mujj gi ñu defar saawiya bi ci kaw di ko defee ci saawiya bi ay at ba niñ mujj wàcc ci saawiya bi di ko defee ci mbedd mi ay at mujj na jël na ba yegg ci ñaari tëli yépp ci penku ak sowu léegi ñu toxal ko ci teeree gaal gi bañ ko indee yaakaar naa ci teere gaal gi léegi mu ngi bëgg a nekk ay at di gërëm mbokki taaliba yi nga xam ne yépp ñu ngi gis jamono bu nekk taxawaayu Cheikh Mahamadul Amin ci mbooleem euh, njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ci taaliba yi rawatina fii ci ndakaar gi nga xam ne fi la ko yàlla séddee mu séddee ñu ko ñun waa Ndakaaru kon nit ki su ko yàlla joxee xéewal war na xam li ko yàlla jox ndax yàlla moo ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon ñu ngi sant yàlla ci xéewal gu màgg gi muy jox di cheikh mahamadul amin yal na yàlla yàggal ko fi ànd ak wér mu di ñuy jiite di ñu dimbale ci zahir ak ci baatin ndax cheikh mahamadul amin day yaakaaru diina lislaam la yaakaaru tarixa bi la waaye yaakaaru fayda bi la ñun ñemos ñun xam nañ li ñu wax yal nañu yàlla dimbale yaara bi ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp ñëw ci jàmm nekk fi ak jàmm jariñu yóbbuwaale suñ njariñ ci zaahir ak baatin yàlla may ñu loolu ñu taxawe ko ci fukki fan ak ñeent ci weeru tulie yàlla yàlla yombal lépp ñu ngi gërëm soppe yi di gërëm télévision bi di gërëm ansaaru diin mi nga xam ne moo ëmb mbooleem dawaayir yi nga xam ne tey ñoo bokk tey nànk siyaare bii nga xam ne ci biir saal la commencé woon di màgg ba léegi ñu ngi gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahuma salli ala sayyidina muhammadin walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan taftahu lana biha abwaaba rida wa taysir wa tughliqu biha anna abwaaba alsharri walshaqaawati waltaasir wa takun lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa mawlana fa nima almawla wa nima alnasir rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin